إني أعوذ بالله مسلوتنا من كل لاب Iblis ma ñaaj raamatulaa moo tax ba yoonam dëng naa inni ahoosu bil ilaa muslootina min kulli laa iblis ma ñaaj ramatula moo tax ba yoonam dëng na bismillaahi laay dale waaju ca doore dootale nangeen xerawul wax jile may bëgga wax ci sayxu naa bismillaahi laay dale waaju ca doore dootale nangeen xerawlu wax jile may bëgga wax ci sayxuna ma wut kayit te soosi daate kañ fi waajaray bi daab dundal sunnas muhammada waaju ko weddi sanku na kookaa di Seyxil Muntaxaa sibtul xadiimi zuutuxaa moo sell moo dañal saxaa Bamba ko def mursidunaa kookaa di Seyxil Muntaxaa sibtul xadiimi moo dañal bamba ko def mursiduna dem nga ba mar wataak safa an nga ziar nga mustafa ya qadimul mustafa ya isa saafaras qulubuna lil muntaha aw sil suróor yow lañu doon junju ca biir yaay jant yaay gindi kuréet yaay xalifa mbég teg mu mboolem xalifa yëfi daa sàmm si yoonu Ahmada yow lañu jébbal seeni ndaa moo tax manaa la asxinaam bamba di njiite latqiyaa yanam ya yéemi lanbiyaa tiisam ya sut yuy lawliyaa natuy gabong ya mettina galwaaña jamba tooba tiis romb nga réewi kabla bees del si balaaku tiis dootunu gis dara yanaa pexeñ mi tëm moo fi yaxal lu tax manaam murit du mus ca bis ba xeet ya ñépp naa ku ni fegal azaabanaam moonu defal ngeen gi xiraa ñuy naan ca déegi kaw moonu jamal jëw fal faraasa datan ba aljanaam tànn nga ruu balaa yow lastu awwalaab yaa wuyul indal malaali lee def sa fiihinaam yow mii donay waraa yaa nuy ci sa waraab yaanu kaweel bilam tiraaxa laa rijaali rabbina yow mi tafal ci Mustafa defal ci Muntaxa sifaat ataaya naa la Mustafa muridina busraa lana yow dëxañ ci sayxuna al muntaxa imaamana defal sa toqi daa yam ak dereeti seex muntaxa fegal ko daa ko sifa su dóorina maa tambale woon basmala yeggale naa am dala ma sant yàlla sant la woy ma def rabiyu naa man mi muhammadul amin may may ngërëm yu dootu neen te may ma ak yokku fegal ma lor ci àdduna wakirlu naa ci rabbana sëlmal ala sayidina صلى عليه ربنا كما استفى تخولنا وكرلنا في ربنا سلما على سيدنا صلى عليه ربنا كما استفى تخولنا